dañu baaxee ñun waa Polité dañu baaxoo euh, bu ko jamono laajee ñu woo euh, taskatu xabaar yi waxtaan ak ñoom pour ñu jottali suñu baat wax ban gisin lañu am ci réew mi wax ko suñu waa réew loolu moo tax tey ñu woote euh, natt fi ñu toll xool jéego yi nga xam ne seqi nañ ko xool xat-xatu jamono xool tam li nga xam ne jàpp nañ bu ko defandoo yàlla dinañu baaxee ñu mën a seqi yeneen i jéego avancé ci lu gàtt ku waxal yàlla di nga jàpp ne réew mi am na fu mu jógee am na fu mu toll te li gën a baax li gën a neex incha allah mu ngi ñëw waaye nag pour mu ñëw am na noo xam ne war nañ ko tëddee tëddee mooy il faut que ñu mànkoo il faut ñu déggoo il faut ñu def benn say tekkiwul ne ku nekk nga bàyyi li ngay xalaat waaye dafa laaj simplement ñu ràññee li nga xam ne am na solo ak li nga xam ne motu ko te kenn si ñun bañ a jàpp ne réew mi yow kott la bu ñu doxalee noonu yàlla mën na ñu baaxee ñu gën a conforté euh, maanaam essais yi nga xam ne def nañ ko te loolu ngëneen lay doon ndax na wax dëgg yàlla am na lu fi xew boo seetloo bu baax a tax nat di nga xam ne Sénégal xar kanamam soppeeku na bu baax a baax. kuy def politique dafa naan day tabax dëkk bi kuy tabax nag doo toj mbaa boog da ngay xam nooy toj looy toj bu fekkee ne yow sa doxalin politique deret lay tuur rongoñ lay woddal méttit lay jur sa doxalin politique defe naa laaj na ñu saytu ko seetaat ko li ñu war ñun ñëpp en tant que qu'acteur politique ñu jàpp ne yokk afiya yokk jàmm gën a naatal mooy suñu wareef. ba tax na ñu nga xam ne jël nañu initiative indi benn xët ne képp koo xam ne gise nga noonu nanga ko siif jàpp nañ ne euh, ñu ngi béy seen wàll ci waar wi te ñu ngi encouragé boobu trajectoire ndax euh, addina bi fi mu nekk nii jafe na ba nga xam ne lépp lu ñuy génne si loolu jëmul kër. kuy def politique dafa naan day tabax dëkk bi kuy tabax nag doo toj mbaa boog da ngay xam nooy toj looy toj bu fekkee ne yow sa doxalin politique deret lay tuur rongoñ lay woddal. méttit lay jur sa doxalin politique defe naa laaj na ñu saytu ko seetaat ko li ñu war ñun ñëpp en tant qu'acteur politique ñu jàpp ne yokk afiya yokk jàmm gën a naatal mooy suñu wareef ba tax na ñoo ñooñu nga xam ne jël nañu initiative indi benn xët ne képp koo xam ne gise nga noonu nanga ko siif jàpp nañ ne euh, ñu ngi béy seen wàll ci waar wi

Euh, ñu gunge leen ñoom ñu gunge leen ndax seen jàmm mooy suñu jàmm ci loolu nag ñu ngi xaar ci président de la République mu joué ci rôle bu am solo ndax moom moo na a jiite Union africaine te balaa boobu sax yàlla may na ko am na taxawaay boo xam ne defe naa ne ñi koy déglu bari nañu donc bu ci jógee incha allah ndax suñu rapport ak Mali nekk na ay rapport yu yu wute ak ñeneen ñi euh, mën naa am yàlla dugal si loxoom bu baax a baax